kon euh, fonk leen am na solo euh, tamit euh, di leen di sàkku si ñoom ñaan am na solo fanaa ñun yow rek a ñu yónni parce que ñun bi nekk si diaspora moom xam nga ne uti sax ñaan feneen ñu kon li ñuy relaayoon rek mooy suñ ñaani waajur ñoom itamit ñu nekk fi mu nekk loo xam ne at any moment mënoon nañ leen a jël rek enn yóbbu ñoom itamit so definitely dama fiil rek ne Euh, yëpp daal ni ma koy waxee di dafa dafa doon loo xam ne dafa kéemaane parce que euh, xëy na lu yàlla namoon la si ñun mu jaarale ko si ñun parce que li gars yi di wax yàlla du mës sa wàcce def anything daf koy jaarale si ay nit euh, si ñun la ko jaarale woon pour lii mun a am ñu jàmm ci rek yàlla ñu ni tamit. <laughs> kay loolu dina am solo euh, bu boobaa ñu dugg si li nga xam ne mooy National Assembly démba jamono yaay Jammeh ak National Assembly démba si jamono Adama Barrow euh, ñii ngi wax ne euh, Assembly Yaya Jammeh Robert Stam national. li ma waxoon mooy ne National Assembly bi. gis nga Amérique ak feneen a feneen balaa ngaa dugal si seen Senate wala si seen House dangaa am a period of li nga li ñuy ooyee induction nga xam ne dinañ la dinañ dinañ dinañ la jàngal euh, woon la wax la itamit lan mooy sa responsibility si liggéey bi nga xam ne moom lañ la jox euh, dinañ la jox tamit fu mel ni Sénégal di nga am opportunity nga làkka làkka bi nga dégga euh, fanaa foofu olof la ñoo use National Assembly bi mm-hmm. nga mun a communiquer bu baax wax li nga bëgg a wax askan bi mun laa dégga yow itamit nga mun a express sa bopp bu baax parce que angale du suñ du suñ luñ nàmpa ñun ñëpp dañ ko jàngal So so dafa important pour ñu ubbi national euh, assembly bi pour ñu mun a not just ñu jàng seen responsibility waaye ñu mun a wax ci seen ci seen làkka pour mu mun a set mm-hmm. euh, fanaa soo gisee euh, the model of the the um, constitutional review committee bu ñu demee up country nga gis Gambien yi ñuy waxee li nga xam ne mooy seen xalaat si li war a nekk si constitution bi nga xam ne Gambien gi xëy na li ñuy wax ne um, xamut Gambien bi xam na waaye xëy na pour express ko si English mooy problème Eh, so dama fone important na ba pare dama fone ne tamit National Assembly bi léegi eh, utee na ak bu njëkk ba parce que boo gisee tay eh, ñu mun a ñu mun a toog ba ñu yóbbu di di um di supplementary budget bi biñ ko yobbu ñu mun a toog askan bi yëp jox ne leen lii warut ñoom itamit ñu déglu ba nga xam ne bam njëkkee ñëw dañ ko dàqane leen dem leen ngeen seetaat ko. ñu am bu demati wàññi nomba si man damaa wax ne loolu victory la not just pour askan bi waaye tamit pour national assembly members yi parce que ñu ngi door ñoom tamit di jàngale ñi ñu fi teg dañu am solo dañ leen war a déglu time yi yaay jàmm gis nga ñun dañu am sax pour call national assembly members yi di waxtaan ak ñoom soo tey definitely ñu ngi make progress um, dina slow waaye foog ñu understand yi tamit ne 22 years lañ jógee of dictatorship uh, foog ñu understand ne yëpp du mun perfect yëpp du mun a nekk du mun right at the same time waaye buñ gënee góorgóorlu comme li ñuy def nii askan bi tamit jël seen matuwaay yu wër make sure ne ña leen a ña ñu mun a ñu mun leen a wax seen xalaat wax leen itamit lan nga li ñoom li nga xam ne moom lañ bëgg si ñoom dina dem man daal I have to be optimistic